Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en juillet dernier, lors de la visite d'État du président chinois Xi Jinping au Sénégal. yow njiitu réew mi góor ak jigéen ñi fi daje ci weeru juillet bi ñu génn ci tànku nemmiku yi mu doon amal ci Sénégal njiitu réewum Chine Xi Jinping jëloon na dogal ak pas-pasu fas yéene ànd ak président Macky Sall ci luy lëkkale jàppalante diggante ñaari réew yi. loole nag ci mbirum ay yoon ak i tabax ci la bokk rawatina mu jagleel gox-goxaat yi fas yéene ñu jàppale leen ci dem dikk bi réewum Chine ànd na ak senegal loxo loxo ngir mën a topp joxañu ñaari njiitu réew yooyu ba loolu àgg ba fañu ko àppal mu mën faa dem moom Macky sàll ak si Jinping fas nañu yéene ñaari réew yi kenn ku ci ne gis sa bopp ci loolu rawatina ci mbirum ay jumtuwaay yu mel nii autoroute bi ci fii ma toog dama bëggoon ndokkeel réewum Sénégal ci ndam la mu am ci groupe consultatif bu Paris muy ñiy leble xaalis ci kaw loolu réewum Chine noppi na ngir ànd ak Sénégal ci jàppale ko ci ñaareelu xaaju plan Sénégal émergent loolu lépp ngir yokk ànduk ñaari réew yi ci mbirum infrastructure ak lépp luy dëgëral jàppale Chine ak Afrique ak Chine ak mbooleem àddina bi. dans la communauté de destin Chine-Afrique et de celle pour l'humanité.